lañ léegi comment ah, yow ñu la ndeysaan yaa ngi koy wër soxla ko lool boo ko amee mën nga ci bëgg ki ko mën wala ki ko man waaw naa ne ñaar yëpp mais ki ko man ñu njëkk soxla lu tax ko man lu tax nga tàmm parce que yaakaar naa ni boo matee mat daan moo ëmb lépp waaw mais mais cof ci tuuti rek non Moussa mën ma cee cof tuuti fans de bul fàtte loolu parce que bu ñu xamee Mun sa boobu dara néew te lay mere de ndax normal laa min rek laa wuy ma Moussa game ma de waaw boo déggee ma ne la da koy mat c'est parce que mën nga yor àdduna wi ci bi te sa jabar xam nga yorul dara di dulu keccax zombie, soom hmm. bi mën nga téye sa jabar ci sutura hmm. ak ci li nga xamantene ni mom la mom nga bëgg doxé ya, ak mom mais hmm. yor ko xamantene ni dafa am aduna li ci biir muy guddé ñëw di passat passer xaalisam ngay dund nakar ak stress loolu dafay ya, bari avant tout mat la. Mhm. leneen li yëpp ay deuxième la rek. d'accord avant tout mat leneen ay deuxième la waaye loolu la soxla deuxième boobu la def à côté bi ko la lépp mais ma réew seen rek lépp ay deuxième la c'est yi comme comme li may wax euh, tout le nii la euh, àdduna dañuy waxtaan te nag amoon naa ay invité mais ba tey euh, débat bi dafay nekk débat buy suivre buy continuer. dañ koy mat wala dañ koy mën dinaa fi indi invité bu leen xalaat nag dinaa ko indi pour mu am solution wu mat bi wala mën bi la ñii nag ay yéen a ma gën a xam boo leen déggee ngeen xam ni développé yu wax nañ seen xalaat léegi li gën a am solo mooy que mbokk yi internet bi Sénégal TV lii seen émission taxaw seetlu nee nañ koy defee chaque jour ko jëfee waaye balaa may dem faaw mu bàyyi leen ñoom ñu tàggoo après man ma tëj clôturer maman looy tàggoo waaw euh, man nee naa la duma dem sans ma lay tàggu yow mi nga xamante ne yaa ma invité ba pare nag di ma clash si biir li nga xamante ne moo di émission bi. waaw man moo see beneen yaa nga ma ko def gis nañ fi professeur la professeur Dof. waaw ñu koy dégg bu baax a baax ma madame Seck ah Bas fii laa leen def. ñaa ngi dóor de lenn ab dafay jàpp. <laughs> lay. non man léegi madame Seck moo ma jox lu baax. xam ah, ah, ma xam ne ay dóor la. <laughs> excusez-moi maman la mel léegi Bamba. waaw ah. sa mot de la fin sa tàggatoo. waaw sa tàggatoo. léegi li may tàggatoo mooy yow maa yang ma yaa ma jëlee. waaw ni ma teg na si plateau mu mën a wax. waaye fa nga sant la gërëm la mais loolu dara ñoo fa. waaw mais te jantal mais waaw loolu nga xam ko. waaw yaa ma dara mais kon bégg ma ah. bégg waaw bégg d' accord yang nee na bégg yang nga xam ne nag mooy daam xam ngeen ko moom ci kër gi la bokk yang ci kilifa kër yi ak ay ndaanaan daam sa tàggatoo. waaw tàggatoo rek gërëm la ci plateau bi tey ñu doon waxtaanee thème boo xamante ni mën actualité la. xam nga parce que chaque jour problème yi nga xamante ne ñu nekk si kër yi du fi jug te boo xoolee toujours dañ ciy wax di ci wax di ci waxaat te du du teye du fi jug kon loolu day ni jëkkër ak jabar problème mënu si mënu si mënu mais am solo rek mooy ñuy ñaan yàlla rek ak lu ci mënti doon rek ñu delloo xel yi xam ne aussi tamit nit bu loo bu la ko dénkee rek yow na nga ko war a na nga ko war a dal dalal et tamit di ko gide pour mu jaar ci yoon bi nga xamante ni yoon bu baax la di wax soxna yi aussi tamit jëkkër da nga koy jaamu jëkkër du morom da nga koy jaamu loolu aussi tamit boo nga defee seen xel rek yàlla mën na def lu bëri change daal balaa jaay rek di di di jox dig daye euh, internetu Sénégal TV dinañ jox euh, dig daye ba beneen yoon incha allah waaw di leen jox di daje ba beneen yoon kooku bëri ko liggéey mooy taam ak ay ndaanaan mais nag man bëggoon naa nga def benn publicité ci soxna si xam nga xam yi. waaw mën naa mën naa mayal ma ko dama ko mayal mayal ma ko ndax taay day bëgg di foo Wow, jàpp ci buñ ko joxul xaalis sax ñu jàpp ci. waaw taay taay moom waaw taay sama chéri boobu sama chéri bi. ndeysaan sama chéri bi. waaw ah waxuma lu bees sama chéri laa waaw. taam maa la may. chéri maa ngi lay nuyu di la bëggee lu bëri bëri. waaw. no émission bi neex na. waaw xam la may dural. waaw foto. kër yi tàng naa yooyu ñu gis li di Sénégal fii di benn bopp la ñëpp benn lañu daam boo gisee ak maman sërëm la dañuy dañuy ree ñaar boo leen ci plateau ñuy wax da nga yaakaar ñaar na ay at mais Sénégal bi moo ñu boole ñun ñëpp ñu teg fi nekk ay nekk benn di kaf di ree mbokk yi kon euh, seen émission taxaw seetlu ñu leen di message ne waaye nag li euh, ñu fi indi woon pour trouver solution bi je pense que ba tey amaguñ ko je vous cache pas du ma leen nëbb dëgg bi parce que ci sama plateau man mii toog sax amaguma solution bi kon saa ba damay wéyal affaire bi di ko wéyal ba bis ma jàpp ni dinaa am solution bi ndax lii lu jar toog waxtaane la jabar da nga koy mën ndax ñu bëri ñu takk fii ah xëy suba bàyyi kenn xamul ndax mat la kenn ndax ñàkk bañ a mat la li am solo ba am solo mooy que dama leen jox dig daje ba suba incha allah ci beneen taxaw seetlu.